mais gars yi Lamine Camara actuellement ko ak Southampton ñoo ko bëgg dinaa leen laaj ci ñaari club yooyu ban ngeen ci bëgg mu dem fa man nag dinaa leen wax balaa bëgg mu dem fa maa ngi doon dégg ay rumeur Barça ak waxuma ci nag dama amoon lu ma ci leer moo tax salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant ñu bëri ñu ngi ma doon interpellé passé lan moo tax waxoo ci Lamine Camara Barça gi mu war a dem ak yooyu waxuma ci nag ah, boobee xamoon naa xel que ni Lamine foofu du destination am demul foofee ngi noonee ba soit Ligue 1 lay toog ba même pour dee day dem sax championnat Angleterre bu ñu gisee prix bu normal mais en ce moment Lamine Camara Southampton ak Monaco ñoo ko bëgg ma leen laaj ci commentaire yi ñaata kan fan gen bëgg Lamine Camara dem ko nag mm, kooke di Metz actuellement bañ na offre dix millions d'euros bu la kooke di Southampton Angleterre mu ngi noonee te Lamine moom forcément day jóge Metz moom loolu moom Thierno Seydi leeral na ko di agent mais baax saa moom demam fa moom mu ngi noonee rumeur yooyu ba mu doon am yooyu yëpp waxuma si mais xam naa xel que ni Lamine moom foofee demu fa mais entre Monaco ak Southampton fan ngeen jàpp ne fa la war a dem en tout cas Monaco jënd nañ attaquant bi nga xam ne il fait partie des meilleurs buteurs ci Europe bi muy Mikotadze Lamine Lincoln ak Mikotadze mën na avancer te Monaco dafay football loolee di Ligue des champions saison bii di ñëw. est-ce que gisoo leen ni pour mu gën a am lumière mais aussi pour mu gën a jàng pour mu gën a am expérience monter en puissance a wëyal yamaatuñu foofu football Ligue gën a am visibilité yeneen club yi gën koo bàyyi xel ngir mu mën faa mën a dem wëyal loolee gënul mu am expérience au moins ci Ligue des champions sax balaa moo dem ci club bu gisoo leen lool comme na ko Bellingham defee ak Dortmund di wëyal banaam demee Real Madrid Lamine gisoo leen loolu moom man de loolu laa jàpp am na ñu bëri nag nee nañ suñu ñoom seen mais Ligue 1 française nit football na fa am ko boo xam ne kenn football na championnat Angleterre te amu ko waaye Ligue des champions surtout leneen la expérience boobu dafa jéggi dayoo dara dootu la jommati ci football mondial dara dootu la jaaxale ci football mondial kon nag